ci ab téere jëmale jëmale kenn kenn ci kilifa yi réew xas ko xas ko xas ñaaw ba jamono jamono yëpp nit ñaa ngi koy delloo delloo xas ba lu ñaaw ñaaw lu nekk nekk na ko ci safar bu nekk bu nekk wax na ko mbokk yi mbokk yi suñ borom suñ borom daf ñoo wax ñoo wax ci kursi ci lam lam ñu yàlla sallallahu alayhi wa sallam suñ borom borom ne ñii حرم الظلم على نفسه وجعل جعل بين بين حرما رما صلاة صلاة الظالمين suñ borom nee na ma nee na man yàlla dinañ bind damaa xaraamal sama bopp sama bopp xaram ci zulma ala ala nafsi yàlla nee na nee na man yàlla yàlla sama jàmm damaa xaraamal tooy tooy sama bopp sama bopp wa jaxal jaxal bay na bay na ko lu xaram xaram la ta la def naa def naa ko lu xaraamal xaraamal diggante mooy mooy du leen tooñee nit nit bokk yi loolu loolu loolu jaar ñu jaar ñu lañ bokk ji ji nga xam ne teg na ko kilifa kilifa ji lam ca lam ca wax dégg dégg loolu bokk yi lool bokk yi lool même bu doon même bu dëgg ëpp na ëpp na ko yab ko yab ñam di ko di ko deru bokk deru bokk bokk bokk bokk yéemoo ci wax ko ndax wax sax moom day naaw waaye waaye fan nga bind livre boo xam ne ba at ba at li livre ba dafay dafay def nga ayibal ayibal as gox ci sa livre ayib yoo xam ne yaa ko yaa ko raafaral sa bopp sos ko ba mu mat ba mu mat ayibal ko ko teg ko ci terab ci terab bind ko bind ko ci sa livre ñu publier livre ñëpp yokk yokk seetaan seetaan ay sëtëm ak seetaan dañuy ñëw ñëw fekk fa livre boobee ñu def seen seen membre livre mbokk yi loolu loolu ko war a ko war a dañu dañu maanu maanu des mbokk yi kenn kenn loolu da wax da wax mbokk yi rafet rafet nga maan nga yaram yaram mbokk yi amul amul benn boo xam boo xam ne war a war a ragal ci yow man sama yoon nekkul nekkul ci te diw la xëy wala xëywu xëywu diw ci diw ndax mën nañu wax li ñu wax ma bi sa bi sëkk te jàmbur jàmbur jàmbur mën a doon ayib bi jàmbur du la lool mukk wala tëdduwaat suñu borom nee na nit du kaaroo kaaroo moroomam wa an la ilaha illa ma jàmbur mën a doon ku nekk lañ lañ def wala la jëf wa ànd wa ànd sax muy faa kenn ku nekk bu ëllëgee la ñu lay jural jural sa kanam nga xam ne nga xam ne tamit àddina ba nga ca sawar mooy jëm mooy jëm jëru àddina waaye waaye mbokk yi jàmbur du lor kenn daqaar daqaar du ma du ëmb ci mbokk mbokk yi ne kenn ku kenn ku ci nekk maam ci ay moroomam daq ci ay bu boppam mu di ko jaaxal jaaxal mu di tiit ak di ko jaaxal jaaxal di tuubal boroomam ak jàll ci jàll ci moom te xam ne bu ëllëgee sa ay bu bopp rek bopp rek lay lor jàmbur jàmbur mbokk mbokk yi dañ jël incha allah incha allah mbokk yi li ma tëj li ma tëj mooy mooy kàddu kàddu xam nga xam ne xam ne moom sa baax sa baax moom sa xam sa xam ak ci la ko ci la ko askan la ko la ko ñëw ñëw laay daa laay daa leen kàddu kàddu ñun nit ñun nit ci jiital mooy sant ko ci sant ko ci te xam la xam la ko ko def loolu la war a def war a def way juróom baax baax bi tax at loola da nekk kaw kaw wala wala wax ne njaboot njaboot soleil daal soleil daal way gërëm kët moom ci moom mbaa mu mbaa mu sax way ci moom ci moom lépp lu wayal wayal way gërëm way gërëm war na ko kon kàddu kàddu googu ba mu ci dem ci ginnaaw ginnaaw askan bépp koy sant askan bépp koy bépp koy gërëm mbokk yi mbokk yi fii réew mi réew mi sol ci xol yi xol yi tàng fii réew mi réew mi sol ci ay ay mett fii réew réew mi sol ci ay ay ñax fii réew mi réew mi ci ay coono coono yi nekk ci bis bu ñu ko dóoree ci mbir mi ak góor lay def. wallaahi li ne ci xol ci xol yi bu ñu ko dóoree dóoree ci mbir mi lay def. mbokk yi mbokk am kàddu kàddu yëpp kàddu ci kàddu. a wax waxal ku mën a ku mën a yuuxul yuuxul. njiitu réew la réew la dañu la xal bi ñu la xalee. nekkul nekkul tool ak i jafe-jafe moo taxoon moo taxoon lu wóor la yëkkati la teg la ci bopp réew mi réew mi li ñuy li ñuy sàq ci yow mooy nga mooy nga wëlbatiku jublu ci doore doore askan wi nit ñaa ngi war a a faju amuñu amuñu fajoo ngi wéy ngi wéy tawat tawat ndax ñax ñaxtu sàmmkat yaa ngi yaa ngi ñax baykat yaa ngi ñax transporteur yaa ngi ñax ñax jàngalekat yaa ngi ñax jàngalekat yaa ngi ñax nit ñi yaa ngi ñax commerçant yaa ngi ñax coono yi nekk ci réew mi docteur yi bëri du bëri ay ñax amuñu amuñu tuwaay yi fajoo fajoo coono yi yëpp askan bi dafa ko dund te ba ñu lay lay benn yi benn yi amoon ci yow ci yow mooy mooy nga faral yoon yoon kañ tekki leen suñu coono coono waaye waaye surtout ci yow ci yow ay ay noonu noonu ko wat ko wat ci yow ci yow di jëm ci askan askan bi mbaa ay musiba ak i nag ak i nag akub rey rey ay deret yu suuf di sox ko yow ci yow ci yow di jëm di jëm ci askan bi yow la yow la jiital yaa amee armée armée bi yaa amee gendarmerie yaa amee police yaa amee budget bi doole yi doole yi sa loxo la nekk ñun ñoo jël suñu doole jox la bu la soobee rek am rek am rek fi am bu la soobee réew mi jàmm rek am am lépp loo xam ne xam nga xam nga ne boo ko defee jàmm ji réew mi lay ñaan nga def ngir jàmm ji réew mi ku mën a wax a wax waxal ku mën a yëkkati kàddu yi si kàddu mbokk yi réew mi am na ñoo xam ne am na ñuy wax ngir réew mi tàkk ñoo xam ne dara ne dara nekku ci réew ñaa ngam ay ay appartement ci bit seen njaboot ak seen soxna nga fa seen doom nga fa tey jii bu réew mi woon ne woon jëpp tàkk dañuy daal di jël fii wol ñu wër wër wan ginnaaw ginnaaw réew ñun ñi nga xam ne amul kenn bu réew mi bu réew mi tàkk kon na képp topp waxat suñu